nañ ñëw wuy si loolu tax nag ñu jógee ba Gàmbi ñëw femmes di voix pour la cause ñu leen di nuyu di ndokkale bu baax a baax ci événement bu mag bi nga xam moom la ñuy dund tey muy ñetti fanu Tivaouane nga xam ne tey mooy l'apothéose tey mooy la cérémonie officielle waaye tey également mooy le grand jour ñuy célébrer l'anniversaire de notre président waaye itam suñu guide spirituel du Cheikh Seydi Mouhamadinel Moustapha Sy gannaaw ba ñu ko nuyoo ziar ko ndokkale ko bu baax a baax di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram waaye di ñaan yàlla mu guddal fanam lool lool lool maam di la ziara di la ndokkale ci bisu màgg bi. ñoo ngi lay nuyu di la ziara Pape euh, di euh, nuyu ak a tamit mbokk yi nga xam ne ñoo ngi ñuy bàyyi xel ci Mourchid TV la chaîne des valeurs comme ni ñu ko waxee euh, depuis deux jours ñu ngi fii ci Tivaouane tey ji nga xamante ni mooy samedi 10 juin 2023 ñuy màggal fii ki nga xamante ni mooy sang jamono leeru jamono ki nga xam ne mooy sang umma islamique ndax jamono ji ñu wax ak yéen. Euh, fii ci Tiwaawan leer gee ngi baawaan comme ni ñu ko waxee woon ci wàccaayu yowmul murshid gis ngeen ne sang bu tedd bi Cheikh Sidi Mouhamadul Moustapha Sy yegg si na euh, délégation yi ñu ngi yegg si ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, délégation spéciale yi ñoo ngi noonu ngeen di gis ñuy akolaat ki nga xam ne mooy sang bi Cheikh Sidi Mouhamadul Moustapha Sy Maktoum Pape du ñàkk ci kanam tuuti am na yeneen ak yeneen yu ñu jàpp ne moom moo war a ànd ak Euh, guddi gi ma bàyyi la rek nga ñëwaat ci ci programme bi ak li nga xamante ne moom mooy xaar téléspectateur u Mourchid TV. waaw maam balaa loolu gis nga ni suñu kilifa teel na génn ànd ko ak maam Cheikh Tidiane capitaine waaye ànd ko également ak ñoom maam Babacar ak seen gan yi nga xam moom la ñu am tey ci bés bu màgg bi. waaye bés bi comme ni ñu ko waxee nga xam ne moom mooy nekk cérémonie officielle bi. nekk itam li nga xam ne moom mooy euh, le dernier jour ci ñetti fanu yi nga xam ni 25 ans après bi ko maam Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum. sëriñ bi ànd koog moom mu célébré woon ko fii ci Tivaouane en 98 tey les femmes libres ñoo ko defalaat suñu kilifa di Cheikh Seydou Mouhamadine Moustapha Sy gis nga ko noonu moo jiitu sax gan yi di dalal gan di leen nuyu noonu di leen installé maam mu nekk programme boo xam ne programme bu yaatu bu fas yéene am tout à programme bi maam dina ñëw commencé ak benn surprise loolu nag femmes libres yi ñoo ko jagleel surprise lañ koy tàmbalee surprise lañ koy tàmbalee maam <laughs> xam nga loolu ma lay wan ne tey programme bi du nekk programme bu yomb exactement surprise lay tàmbalee bu ñu paree ci surprise bi ñu dem ci prestation bu Ababacrine waaye itam buñ ci jógee dinañu dem ci Pape Malick buñ ci jógee itam dinañu dem ci ay discours buñ ci jógee dinañu jox Seyda Mariama Binda Thiam waaye itam bu ci jógee itam dina ñu defaat ay discours yoo xam ne moom la ñuy conclure moom la ñuy clôturer oh. li nga xam moom mooy jotaay programme bi neex na donc maam tey moom la ñu préparé njaboot bi indi ko fii kon nag sang bu tedd baa ngi noonu ànd ak maam Babacar ànd ak ki nga xam ne mooy maam Cheikh Tidiane yi capitaine gis nga ni maam loolu nga xam ne moom mooy ñetti fan yi gis nga commencé nañ ko depuis alxames exactement ak guddi àjjuma jóge ci alxames guddi ajuma bi ñi dem dellu si ci li nga xam ne moom mooy xadaratul juma bi waaye dañ ko jiital ak ay ñaan maam parce que ñu bare bari ils se demandent ci contexte bi le fait ñuy célébrer li nga xam ne moom mooy ñetti fan yi waaye xam le ni ñetti fanu ñaan la waaye ñetti fanu barkeelu la ñetti fanu itam fàttaliku li nga xam moom mooy taxawaay bi nga xam ne moom la suñu kilifa def ci réew mi def ko ci àdduna bi maam tey nag muy cérémonie officielle bi defe naa moom mooy Madinatul Moustapha Maam exactement moment de partage la occasion euh, de retrouvaille la parce que Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha Sy Maktoum ñëpp xam nañu cofeel gi nga xamante ne nii euh, moom la ko ay njabootam dencal ci xol boo xoolee fële étage ba la seen njaboot gi jóge ba ca kaw a kaw ngir rek seen ko lu ñu am ci moom rek doy na leen ndax jàpp nañ ne leer la ci ñoom mu gungee leen di des ci at mi yëpp donc moment aussi la boo xamante ne nii xam-xam dina fi ballee ko waaye tamit moment de loisir la ndax euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy suñuy artistes incha allah yaa ngi koy tudd sànq ku mel ne Seyda Mariama Binta Thiam dina fi ñëw ci kanam tuuti waaye tamit del soit ci mbind mag ñi ndax li yëpp nag réalisation Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha Sy la amul lenn loo xamante ni comme ni ñu ko waxee tey ci suba euh, ci njaboot gi soxla nañ ko di ko àbbi lépp loo fi gis ñu réaliser ko wala ñu def ko fii ci kër gi jàppal ne njaboot bi ci boppam ñoo ci ñoo ko taxawu kon nag loolu fierté la tey euh, ki nga xam ne mooy Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha Sy ay njabootam ñu def li ñu def tey waajalee ko bés bi ba nga xamante ni ñoom ci cëppaandaw li du ñàkk am na ñoo xam ne sax ñoo war a ñëw wéttali la ci euh, plateau bi ndax noonu lay demee rek wéttali ku wante ba euh, incha allah programme bi di démarré ñu bàyyi rek nga doxal ànd koog ñi nga xam ne ñoom nga war a bokkal plateau bi incha allah Pape. merci beaucoup maam comme ni mu ko waxee dinañu am léegi léegi ay yeneen invité surprise yoo xam ne dinañu ànd ak ñun ci jotaay bi nii gannaaw ba nga xam ni itam mbokk yi programme bi mu ngi noonu di waaja a tàmbali dinañu ànd léegi ak journée bi et je vous ni une surprise dañ koy commencer surprise boo am solo d'ailleurs ci surprise yi tout à l'heure dinaa am koo xam ne moom lay àndal léegi léegi ngeen min ko ci plateforme yi muy soxna Binta mi nga xam ne moom mooy ngeen min ko ci plateforme éveil xam nga dafa demoon salon ak sañse ji donc sañse boo xam ne dafa koy waajal itam journée bu mag bi Binta ginnaaw bi ñu bi ñu la ndokkelee ci bés bi nuyu la bu baax a baax ziar la ñu lay euh, dalal di la bàyyi itam yooyu itam nga nuyoo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy seetaan la télévision Mourchid waaye itam ñiy seetaan la plateforme bi nga xam ne moom mooy les femmes dévouées pour la cause. asalaamaaleykum internautes femmes TV yëpp ñu ngi leen nuyu comme ni nga dooree liggéey bi te sànq ngeen nekkoon si yow ak. xamante mooy Khalifa yaakaar naa ni nga xam ne tey moom la waa femme dévouée pour la cause euh, indi ci at mii nii dafa nekk loo xamante beneen jàngalaat la bu bees ci njaboot gi ndax trois jours lañ ko dooree def ko le jeudi def ko le vendredi euh, daal di ñëw tey samedi gën a yaatal bés bi pour que njaboot gépp mën si ñëw man si gis seen bopp yi tamit Pape tey ñuy célébrer trois jours yi nga xam ne ñoo ngi koy tuddee ñetti fanu Tivaouane yi ñetti fanu Tivaouane yi nekk événement boo xam ne itam amoon na fi ci Tivaouane donc loolu boobu sax la ñuy njëkk a dégg ñetti fanu Tivaouane tey itam ñu dellu siwaat ci ñetti fanu Tivaouane def ko jeudi def ko vendredi def ko samedi tey naka nga naka nga jàngatee ñetti fanu Tivaouane u ak maam Cheikh ñetti fanu Tivaouane tey ak Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha Sy lu simple ci nettali lañ ko xamee ñetti fanu Tiwaawan yi ak vidéo yi nga xamante ne jot nañ ko seetaan ci documentaire yi doon jàll loolu lay nekkoon loo xamante ni histoire da ko marqué retouru Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si ci Tiwaawan ana kan moo ko indi woon Serigne Mouhamadul Moustapha si def nag moyen tax ba nga xamante ne bés bi day nekk lu inoubliable ah ñuy toogaat tey ba ñuy dundaat lu mel noonu ndaxte Pape Gora c' est en 1973 que Serigne Mouhamadou ci la commencé samp li nga xamante mooy daayra te ñu doxoon ko daaray sët yi en mu daal di ñëw indi li di daayratul Moustarchidina wala Moustarchidaati tey ñu toogaat ba waa femme dévouée pour la cause daal di ñuy indi ñetti fan waawoon te lépp nekk yiw lépp nekk leer waaye tamit lépp daal nekk barke Pape ci ñetti fan ñu ko daan tuddee euh, sargal. defoon ko première édition fële nga xam mooy le grand théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose deuxième édition bi ñu préparé ko pour arena nga gis li ci xew yëpp ñu indi ko fii ba xale yi wax ne fii moo gën a neex arena tey ñu nekk ci troisième édition bi Binta naka nga jàngatee évolution boobu di am ci événement bu mag bii di euh, sargal Cheikh Seydou. docteur ah la waroon bàyyi man maa la waroon posé ay question yow ngay tontu ndax xam naa ne li may ah ñu la ci ndokkeel yi tamit waaye li nga xamante ne loolu nga wax loolu rek moo daal di am mooy que ñii di waa femme dévouée pour la cause dañu indi ay xar tànk yoo xamante ne gis nga lu yokkuwul lu ne wàññeeku te yokkute dafa baax te ci la ñu sëriñ Moustapha Sy tàggatee ci la sëriñ Moustapha Sy jàngal ba tax na li nga xamante moo ne comme première édition bi gis nga anam bi ñu ko organisé woon jaaroon na yoon waaye deuxième édition bi dañ ko gën troisième édition bi tamit ñu daal di koy defee anam boo xamante ne ñëpp ci gis seen ndax dafa tombé tamit Pape Gora 25 ans yi nga xamante ne moom la le parti de l'unité et du rassemblement di féete ñu nekk ci at mi ba tey kon mu mel ni ñoom tamit lépp ñu jël ko tënk ko ci ñetti fan yoo xamante ne ñëpp ci gis seen bopp Pape Gora. ñetti fan yu am solo effectivement maa ngi koy wax mbokk yi binda ma koy wax ni li li li yéeme mooy ci 2023 bi dañoo célébrer ñaari 25 ans célébrer 25 bi nga xam ne mooy de l'unité et du rassemblement Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha Sy nekk le président waaye itam célébré ñetti fanu Tivaouane yi Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha Sy nekkoon l'initiateur donc loolu itam nekk lu am solo waaye ñu koy waaj a célébré Binta dama fort ci programme bi que ni surprise dañ koy tam démarré defe naa ni loolu war naa mën a neex lool lool lool lool. balaa lay doon sax nag su fekkente ne euh, ni nga ko waxee noonu la te buñ ko te boobaag léegi maa ngi topp Serigne Moustapha mu ne ma soxna ma ne mu ne ma 40 ans laa def ak Serigne Moustapha kon kooku Serigne Moustapha moo ko yar kon kooku tey li nekk ci moom yëpp Serigne Mouhamadou Moustapha Sy moo ko def si moom yaakaar naa ne conseil bi euh, léegi mu commencé et yooyu noonu yëpp day nekk xeetu euh, pas révision sax mais mu nekk loo xamante ni taarif la lu daara ji moomal boppam lu mu bokkul ak kenn. voilà boo xam ni programme kuy célébrer anniversaire généralement nit ñi ñu ngi xalaat festivité mais nga gis ni daanaka ñetti fan yi li ci gën a marquant moom mooy ay ñaan ak ay jàngale loolu naka nga ko mën a jàngatee également ci enseignement wu Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha Sy moom léppam daara la Pape Gora léppam daara la li muy innové li muy ci daara rek la ko tënk yar jàngale xamale loolu rek la def muy muy muy gis nga dafa am benn texte boo xamante ne dafay am ci beneen texte boo xamante ne dafay wax li sëñ Moustapha Sy liggéey ci soxna yi papkor tey li la ay soxna daal di organiser lu ni mel ngir sargal ku ñu amul kudul moom muy sëriñ Mouhamadul Moustapha Sy ay soxna ñoo takk waaye yile soxna bu ñu xoolee ñi nga xamante ne ñoo leen meññ moo ñi sëriñ Mouhamadul Moustapha Sy formé woon ba ñu mën a taxawal synergie femme mooy ñi Serigne Mouhamadou Moustapha Sy formé woon ba ñu dem jëli seen mbokk soxna yi nga xamante ñoo nekk ci anam boo xamante ne dafa doy waar mooy ñi Serigne Mouhamadou Moustapha Sy formé woon ba nga xamante ne économiquement dinañ mën a taxaw ci daara ji te sax su Serigne Moustapha Sy wax ko ñu bàyyi la tamit nga développé ci parti yi nga xamante ne jot nañ ko indi. bindaal loolu am na am na am na solo comme ni nga waxee léegi femme dévouée dafa nekk loo xam ne lu particulière la parce que itam Serigne Moustapha créé na comme ni nga waxee léegi xam nga daayira du Moustarchidine wala Moustarchidaty Moustarchidaty bi daf ci am part bu rëy boo xam ne daf ko ci am parce que Serigne Cheikh biñ koy wax pour muutal leen pour bëgg a tudd Moustarchidaty mu ne kon nag Serigne Moustapha gunge leen muy Moustarchidine wala Moustarchidaty jigéen aussi am rôle bu rëy boo xam ne moom lay joué ci daayira bi parce que génération boo gis ñu koy taawu xale lay doon ak jigéen jigéen ay jur xale lay doon gis toujours dafay jox place bu prépondérante jox place aussi boo xam ne jigéen ci moment boo xam ni Binta Sénégal dañu gis ni jigéen ñi moom la ñuy utiliser comme des femmes officiers jigéen ñi moom la ñuy utiliser comme des armes de guerre jigéen ñi moom la ñuy aussi pour tuudal gor moom la ñuy pour takkal deru gor naka nga jàngatee ce parallélisme pendant ce temps Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha Sy mu ngi formé mu ngi defar mu ngi yar jigéen réew mi moom am na ñeneen ñoo xam ni ñu ngi jël jigéen ba koo def objet ba koo def outil ba koo ba pare nekkaat ci jamonoom ndax lan dafa tàggat soxna yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ci cellule des cadets ba pare nag yéeg ñoom ba tey li xamante ne tey mooy nax soxna yi ci wàllum li xamante ne amul benn solo dañ leen ci tàggat ci lan ci xam-xam ci yar ci détermination waaye itam daf leen tàggat ci li nga xamante ne mooy rigueur yóbbaale moom Cheikh a Tidiane si capitaine da doon wax la fois passée sargal bi passé mu ne du lii nii moom moo yëngal sëriñ du lii nii mais lii riir ci seen i dënn mu di ko yëg ci fa mu toog loolu moom moo ko mën a yëngal te tey mooy mbégte bi mooy amour bi mooy li nga xamante dañuy duñu duñu rus di ko wax parce nit am na kilifaam di ko nëbb mais ñun tey duñu rus di wax sëriñ Mouhamadul Moustapha si mooy suñu kilifa ndax yàlla fierté bi nga xamante li nga xamante ne moom lañ def jeudi da lay toog sa yaram di daw ndax dañ jàng Taysiir ku ko bind Maam Seydi Hadji Malick xilaasu zahab kan moo ko bind Maam Seydi Hadji Malick ñu ne déet na waa ñu ñëw xadratul jumaa démb ustaz Cheikh Sarr jël sil silsila te juumu ci benn yoon jëlee ko ci mu xam yonent bi salallaahu alayhi wa sallam jaar ci Seydina Cheikh jaar ci Cheikh Omar jaar ci maam Seydi Hadji Malick jaar ci maam Babacar jaar ci ki nga xamante ne euh, moom la ñuy wax euh, maam Cheikh Ahmad Tidiane si alxutbul Maktum dañu xam ne tey Maktum moom moo doogaat nii moom Serigne Mouhamadul Moustapha si kon tey njaboot gi tey amuñu lu dul rek di ko bégee di ko di ko di di wane suñu cofeel ak sagal gim sagal ñu mën a jël benn fan sax doyul pour sargal ko kon Pape Gora yaakaar naa ne ci li nga xamante ni mën nga laaj mën nga ci rebondir te sa sax gëm naa ne moo ëpp <laughs> am na solo vraiment ni nga koy jàngatee parce que itam Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha Sy comme ni ko capitaine waxee woon li koy yëngal du animation bi waaye xol yi ñi nga xam ni moom la tàggat parce que bu ñu fàtte ni Serigne Cheikh daf ko ci defal attestation bu Cheikh mu ngi koy fàttali démb parce que bi Serigne Moustapha defee ay réalisation ñu bëri sax dañu lay laaj Serigne Moustapha lu mu réalisé am leen di wax ni généralement ku tudd réalisation yaa ngi xaar lu matériel le Serigne Moustapha li mu réalisé dafa immatériel balaa muy wax lu matériel parce que nit la defar moo tax Serigne Cheikh moo ko jox attestation bi tudd ni ko ndax xam nga li nga réalisé ci wàllu ruux ñëpp di ko déglu mu ne ko man xam naa ko fi ma toog donc loolu attestation boobu attestation du ko gën a rëy moo tax ñi fi toog ñëpp seen ruux la sëriñ bi jiitu balaa muy defar seen physique defar seen mental jàngal leen yar leen mooy ñaar yi nga xam ne du ko baale ci daayira bi waaye Binta tey bu ñu ñëwee tey di célébrer bis bu mel nii dafay delloosiwaat itam li Maodo waxoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy way ni yonent bi daal nañu fexe ba rek nañu waajal sañsa yi waajal sayaada yi waajal parfum yi ndax dañoo nara teeru ki nga xam ni moom mooy gën di waaye tey jàpp nañ ni gën di am na ku ko teewal ci jamono parce que yonent bi moo wax ni cent ans yu ne yàlla dinañ di ko teewal pour beesal te Serigne Cheikh euh, Oustaz Cheikh moo jàngale démb la réformateur jàngale réformateur kon nag moom mu beesalaat lu bëree bari gis nañ ko Binta dafa mel ni xol yi sedd na bi ñu ko gisee léegi mu génne vêtu tout de blanc waaye itam ànd ak maam Cheikh Ahmed Tidiane si capitaine à côté ànd ak Mame Babacar defe naa ne loolu itam mu ngi wane ni événement bi ñu war a jëm ni cérémonie bi ñu war a jëm ni la couleur s'annonce déjà bien Binta surtout li nga wax euh, Pape Gora ci li nga xamante ne moom la Serigne Mouhamadou Moustapha Sy jot a réalisé te li ñu wax rek xajul ci ñetti fan parce que documentaire boo mënti euh, créé documentaire boo mënti taxawal tamit di nga wax ba wax loo xamante ne sax def na ko donte ne ñu ngi ci yoon te jeexalaguñ parce que liggéeyam géej la waaye itamit dañuy duggaat si beneen mbir rek loo xamante ne day daal di laal soxna yi dellu ci programme am en 2014 2015 dafa am benn tawat bu ñëw dal si àdduna wërngal képp waaye mu gën a impacté soxna yi nga xamante ne ñooy yeewoo fii ci Sénégal moo xam ñi nekk ci gox yi gën a fasantikoo jëm ci cancer du col de l'utérus jëm ci cancer du sein Serigne Mouhamadul Moustapha si xaaru ci état xaaru ci kenn dafa jël benn programme teg ko au niveau de la cellule féminine tuddee ko centre de la reproduction foofu la ñuy jàngale di tàggat ndaw ñi di tàggat soxna yi ana nan ngay def ba mën a maytu li nga xamante ne mooy cancer du col de l'utérus waaye après programme boobu noonu dafa yëkkatiwaat lu ëpp 15 millions jagleel ko soxna yi ngir lan ñu dem xooli ji li nga xamante ne ndax ñoom nan la ñuy def ba maytu su fekkente ne jàngoro boobu mu ngi nelaw ci seen yaram nan la def ba teel ko attaqué pour mën ko kii te da doon faat ay nit da doon faat ay bakkan ah ba tax na kon kii di Serigne Mouhamadou Moustapha Sy li mu def euh, ci wàllu soxna yi ñun ñi tey bu ñu toogee di ko wax yi dañuy wax rek waaye mënuñu ko ko fay parce que loolu côté santé rek laa jël mm. ndax structure am ñëpp xam nañ ni mu làmboo mm. fii ngay ñëw fekk fi CO te léegi ñëpp ñu koy toppandoo waaye nag maam moo ko doon wax Moustapha comme que yow doo kenn da ngay euh, xel di innover rek te loolu ba tey jógu si loolu ba tey moo jur li nga xamante ne mooy lee femmes dévouées pour la cause loolu moo jur lii di colisée de l'éveil loolu jàngat yooyu noonu nga xamante ne tranche dage yëpp lay laal comme démb rek li sang soxna doon wax mu ne dañuy toll ci benn moment boo xamante ne euh, sëriñ dafa soxla ay athlètes mu daal di teg ñi nga xamante ne ñooy waa MG ñu gën leen xam ci Moustarchidine Junior parce que xam na fan la leen di xaaree waaye itamit Serigne dafa soxla ay femmes yu dynamique ñuy relancer waat mouvement bi waaye itamit ci côté koom-koom ci côté anam bi nga xamante ne moom la ñuy wanee àdduna ñi nga xamante ne moom la suñu kilifa def si ñun Pape Gora démba ñu ngi xilaas moo xam jigéen moo xam soxna moo xam sang tey soxna yeeg ñëpp ñoo toogaat di teewlu ngir mën a xaar ana lan nga leen di jukkil balaa ñu dem ci voilà man man foofu laa lay bëgg a sax parce que parce que tey tey soxna ñoo moo tax tey dañuy inversé les rôles tey moom soxna yi ñooy jàngale <laughs> tey dañuy inversé les rôles waaye Binta tout à l'heure dinañu dinañu suivre le programme officiel bi nga xam moom moo war a am euh, waaye balaa boobu dama bëgg ñu taxaw un tout petit peu ci euh, les femmes dévouées pour la cause parce que miin nañu ni euh, programme boo xam ni wala association de femmes boo xam ni dafa aju ci daayira dañ ko daan tural ay tur yoo xam ni dafa dellu si war comme Moustarchidine wala Moustarchidaat comme daayiratul kiram comme leneen ak leneen mais ñu gis ni ñoom dañu inspiré wu ci biir daayira tuddee wuñu leen commission tuddee wuñu leen mouvement tuddee wuñu leen turu daayira turu daayira mais ñu tuddee leen les femmes dévouées pour la cause Binta nag nga jàngatee déjà appellation bi mais également les domaines d'intervention parce que femmes dévouées yi dañ leen di gis ñuy yëngatu lu bare bari sur le social sur yu donc naka nga jàngatee euh, le mouvement bi nga xam ne mooy les femmes dévouées pour la cause. xam nga déjà nee na kilifa gi lu mu tudd mu barke lu mu laal moom mu barke moo tax les femmes dévouées pour la cause dafa ñëw à son à temps la lii di les femmes dévouées daal di ñëw ndaxte comme li ñu ko waxee sànq nii rek euh, ci li nga xamante ne moo jëm ci wàllu koom-koom xam nga nit ñi dañ foog ne affaire yi euh, dajale xaalis euh, pour mën non li nga wax lu am la muy les femmes dévouées pour la cause ñoom ñu ngi ci social bi mais itamit ñu bañ a fàtte ne les femmes dévouées pour la cause trois ans la ñuy amal li nga xamante ne mooy seen structure bi et que Serigne wax na ana lan moo tax defu ko yëfi daayira ana lan moo tax defu ko mouvement parce que dafa xam ne li mu soxla doo ko wutal structure boo xam ne da nga koy tënk mais da nga koy bàyyi mu libre ba tax na nag ci liberté boobu noo nga xamante ne moom la les femmes dévouées pour la cause am pour apporter ko ci cause bi loolu tamit dafa am keneen koo xamante ne moo nekk ci ginnaaw di surveiller waat le travail muy ki nga xamante ne moom moo leen ko tuppee ñu gën nga xam ci Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy waaye tamit les femmes dévouées pour la cause ci seeni réalisation bokk na ci li nga xamante ne mooy école bi ñu jël def ko taxawal école bi ndax gis nga société mënoo ko changer fekk jàngaloo nit yi société mënoo ko ja changer fekk euh, li nga xamante ne moom mooy nekk lu bon liy nelaw si yenn ci mbokk yi nga daal di koy dindi si ñoom bala muy yeewu waaye itam société mënoo ko changer fi leeg toppoo ndaw yi rawatina soxna yi éduquer une femme est plus importante qu'éduquer mille garçons ndaxte li koy firnde rek mooy que ne gis nga xale yi toog ci kanam ñoom ñoo gis nga maam Babacar si tey moo surprise bi. surprise bi surprise bi ngi noonu surprise bi. donc ku gis Mame Babacar mu war a ànd ak waa Tawfekh Junior tey war a joué Mame Babacar Sy monsieur Seydou Mouhamadou Moustapha Sy mais on a Abdoul Aziz